te nee na kii mooy sëñ Touba. te sëriñ bi nee na sëriñ bi. ba waxtu wi jotee. ba waxtu wi jotee. fekk ko ci biir gaal fekk ko ci biir gaal dafa fab deram dafa fab deram sànni ko te kii te kii. mooy suñu royteef mooy suñu royteef. mooy sëriñ Touba mooy sëriñ Touba. mooy suñu adduna mooy suñu adduna. mooy suñu alaxira mooy suñu alaxira bëgguñu bëgguñu. namuñu namuñu xamuñu xamuñu. xooluñu xooluñu seetuñu seetuñu. yu gën a yow. bëgguñu ku dul yow. bëgguñu ku dul yow sëñ Muntaxa li arab bi wax ni rësu maalil mar i salaamatuhu li fondement capital doomu aadama mooy mucc mucc googu yàlla na ko na la ko yàlla def yàlla na la ko yàlla def ndax yow sa bët yii na murid dañoo xet di joxe loxo waaye bi wax un nga xam ne day xool ay doomam nga xam ne day xool ay doomam duñu xiif bu ñu bu leen xoolee ñu rek bu leen xoolee bu ñu maroon bu xoolee ñu mandi bu leen xoolee ñu mandi koo xool yow koo xool doy na sëkk doy na sëkk dañoo xër rek dañoo xër rek di raj raj loo di raj raj loo bëgg laa jox loxo bëgg laa jox loxo waaye yow say bët waaye say bët ku yàlla nart dimbali ku yàlla nart dimbali yàlla naru koo xettali yàlla naru koo xettali di jàkkaarloo di jàkkaarloo yow suñu Moustapha ndax yaral xafaaya bi aynal qalbi zahiratan kama yusalli mata sakina li ngay xam li ngay xam di ko yëg di ko yëg di ko xam ci doomu aadama di ko xam ci doomu aadama bu ko nit ñi doon xam bu ko nit ñi doon xam danañ def attention ci sëñ Moustapha wallahi wallahi ndax sa toogaay bii ndax sa toogaay bii da nga koo liggéey da nga koo liggéey de. da ngaa tarbiyewu say waajur. da ngaa tarbiyewu say waajur. Serigne Moustapha Bassirou. Serigne Moustapha Bassirou. doy na ci. doy na ci seere. waxuma Serigne Bassirou. waxul Serigne Bassirou de. waxuma Serigne Abdoulaye. waxul Cheikh Abdoulaye. waxuma Cheikh Mamadou Fadal. waxul Cheikh Mamadou Fadal. waxuma Serigne Saliou mu fi. waxul Serigne Saliou mu fi mujj. waaye Serigne Moussa Bassirou. waaye Serigne Moussa Bassirou. boo daan toog ci wetam. boo daan toog ci wetam. position bi nga toog. position bi nga toog. du wëlbatiku. du wëlbatiku. du soppeeku du soppiku. bu doon 24 heures. bu doon 24 heures. doo buuse doo buuse benn yoon. kon fii nga toog kon fii nga toog kay. nangu nangu nangoo toppee nangoo toppee gëm sëriñ bi gëm sëriñ bi wóolu ko wóolu ko liggéeyal ko liggéeyal ko tarbiye ko tarbiye ko moo la ko tey ji teg fii yàlla na fi yàgg ci wet ñoom dañ lay bëggee dañ la dañ lay bëggee dañ lay bëggee dañ lay tiitaro dañ lay tiitaro te lii ñu lii xew ci jamono lii xew ci jamono muy xam-xam muy xam-xam ku ci yar aw araf ku ci yar aw araf jàpp ni xam nga lépp jàpp ne xam nga lépp amu ci kenn koo xam ne. amu ci kenn koo xam ne. ak si ne la ci wewu. ak nga la ci wewu tànk. ci xam-xam ci xam-xam. waaye lépp nag. waaye lépp nag. da nga koo fab. da nga koo fab. tënk ko taalibi tënk ko taalibi. parce que yàlla moo fi yàlla. yàlla moo fi fab. université bii université bii. doy na sëkk. doy na sëkk. ci mébéti sëriñ bi la ko. mébéti sëriñ Tuubaa la bokkoon. ci ay bëgg-bëggam la bokkoon. ay bëgg-bëggam la bokkoon. te yaa ko taxawoon. yaa ko defal. lii banal xuduusu madrasatan biha yasulu aza wal jahlu wal kabadu ba ko sëriñ bi di wax. bi ko sëriñ bi di wax. université bee tax université bi rek a taxoon te yaa ko def yaa ko tàmbali yaa ko àggale yaa ko yeggale yeneen naal yëpp yeneen naal yëpp yi nga fa yéene yi nga fa yéene dana àgg dana àgg da nga ko fekk da nga ko fekk ndax am maa maa yéen fawoon naa sa fayam ko fi àgg njariñ li nga am ci nit ñi njariñ li nga am ci nit ñi moo tax moo tax yàlla dana la fi bàyyi dana guddal sa fan dana la sàmm dana la aar dana la taxaw dana la taxaw fii ñu toll ndax fii ñu toll jant bii jant bii tiim doomu aadama di tiim doomu aadama yi. tiimul tiimul. ku la agsi ci weewu tànk ku mu tiim ku mu tiim. fa nga toll ci yàlla. toll ci yàlla. toll ko ci yàlla toll ko ci yàlla toll ko ci Sëriñ Tuubaa kon foofu. kon Mbàkke jërëjëf kon Mbàkke jërëjëf. sunu xarit sunu xarit. di sa Baay Faal di sa Baay mu ngi sàkk Mbàkke di dagaan di dagaan. di yalwaan di ndimbal di ñaanal ko yàlla guddal fanam. di bég di bég di kontaan di kontaan. sunu xol set lii nga ñu defal lii nga ñu defal. jomm nañu nañu rëy na ci ñun rëy na ci ñun. jomm nañu jomm nañu. jomm na suñuy baay jomm na suñuy baay. jomm na ku ñu jege. jomm na ku ñu jege. ndax yaay sëñ ndax yaay sëñ ndax temps bii nga ñu jox. ndax temps bii nga ñu jox. rëy na ci ñun rëy na ci ñun lool ma. Mbacke wallaahi. wallaahi Mbacke rëy na ci ñun. bu ñu mënoon a summi suñu mbub. bu ñu mënoon summi suñuy mbub. tekki li ñu am lépp tekki li ñu am lépp. doon ay jaam doon ay jaam. di ko takk buum suñuy baat dañ la koy jox ndax jëf gi ndax jëf gi rëy Mbacke jërëjëf. Mbacke jërëjëf. suñu xol sedd na dal na fi yàlla bàyyi. ñaan nag moom ñëpp